ne di nuy bu baax di leen jaajëfal yéen ñi nga xam ne saa su nekk da ngeen di teewlu Dakar live ak chaîne bii di Click Dakar euh, tey nag ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di Caaroy euh, li ñu fi indi euh, benn tur tàng la ñu daal di wax ni dañu koo faat muy wuyoo ci turu Cheikh Diop ginnaaw bi ñu ko faatee nag loole mi ngi am niki ya démb bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni jot nañoo def ay témoignage ñu ne rek mi ngi am boor ya 19 heures ki ko faat dafa ñëwoon fii ngir daal di amal ab campagne gannaaw ab werante bu ndaw bu amoon seen diggante ba ñu atte leen moom mu dem ñëwaalewaat ak paaka daal di koy di ci ay témoignages yi nga xamante ni jot nañ koo nangu ci ñenn alors dañuy daal di dem dugg ci biir kër gi ginnaaw bi ñu jaalee famille bi dékk leen micro ñoom tamit ñu daal di wax seen xalaat ci acte bi nga xamante ni jot naa am nemmeeku nañ ko nag fan yi muy am ginnaaw bi nga xamante ni jot naa am ci diwaanu Seras tey ñu daal di waxaat ne am na fii nga xamante ni moom mooy Caaroy euh, lan mooy cause bi ak état tey euh, ban taxawaay la war a am ci li ni euh, di leen fàttali ki nga xamante ni moo def boobu la ñaawteef moom itam wax nañu ni dañ koo daal di faat ci saase ndax ndaw ñi nga xamante ni ñoo fi nekkee mer la ñu daal di def tax ñu daal di amal boobule acte alors sama caméraman kon da ngeen may topp yéen ñaar bu ko defee ñu daal dugg ci biir dékk micro ñi nga xamante ne ñoom ñoo fas yéene def témoignage du ñàkk ñu am waajuram bu góor mu daal di yëkkati ay kàddu ko waxee woon rek ñu ngi fi nga xamante ni moom moo di caaray géej alors ñu ngi toog ak ki nga xamante ni moom di Codou Diop muy bàjjan ci Cheikh Diop mi nga xam ne moom lañu faat dama koy nuyu su ko defee ñu door waxtaan wi ginnaaw bi ma la jaalee maa ngi lay nuyu ko waaw maa ngi lay fay soxna si si gis maa ngi lay fay mhm. ñu sant yàlla bu wér di julli ci Muhammad di julli ci sangu-sang yi tey lan ban témoignage nga ñu mën a defal ci sa doom jooju mu Cheikh Diop nga nekk bàjjanam tey ñu faat ko fii ci Caaroy xanaa mu doon lu mitti rek doon lu mitti doon lu ñëpp ñaawlu man de ba ma juddoo ba toll nii ma toll tefes gii guleet démb ma gis li ma gis ba ma fi juddoo ba li maa ngi soo gis lu mel nii mosu fee am guleet te yàlla na fi yam yàlla yàlla yemale fii yàlla mu amati ba mukk ba tax na li am démb daal ñun mën nañ cee jàngati ne ay mbiri mbiri yàlla la parce que xale bu góor bi bàyyi seex moom mi reyaate waaw ki ñu rey tamit baay seex la tudd yaa ngi dégg ñoo bokk parce que ay seex lañ ñoom ñaar ay seex lañ ñoo maase te euh, kenn ki dëkku fi kenn ki moo fi dëkk kenn ki moo la bu fi ñëwoon rek di tëbaan di dem géej ci gaal yi ki rey waaru dëkku fi ki ñu rey moo fi dëkk mais du doon tëbaan ci gaal yi di dem géej moom nag nekkul woon xaritam de doon ko woon fréquenté mais nag comme xale yi lan moo leen boole ñun mënuñoo xam loolu xamuñu lu leen boole ba tey mais nag nekkul loo xam ne lu am solo lay doon xam naa jombul ay kaf parce que xale bi nit la ko nit la woon koo xam ne du siggi xool doomu aadama ku noppi la ku jàpp njàmburam kaf la xam ak ree pare na ci dem liggéeyi dimbali ay waajuram papaam wérul dafa feebar xale bi ginnaaw yàlla moo doon yoroon kër paayam gi ak yaayam yaayam day jaay jën xale bi dem campagne lu mu am bu ñuy joxe yaayam ak baayam ginnaaw yàlla moo nekkoon yaakaar yaayam ak baayam ba tax na daal li may ñaan ay waajuram mooy yal na yàlla may leen xolog muñ buñ mën a muñ a lii te yàlla jox leen leen lu ko gën remplacer leen dañu mën a fàtte mitit bii parce que lii lu metti la képp ku jur doom démb rek sa xol metti na ndax boo jëlee xale bi xoole ka ne comme doom ji nga jur bu tëddee place boobu dafay metti torop man bi ñu waxee ne rey nañ sa doom bi ma ñëwee ba daw ba egsi pour man sama doom lañ rey damaa tiit pour man sama doom lañ rey bi ma ko xoolee laay xool xool xool bu jox sama doom heure bu ma xoolee rek xale bi jox sama doom ma ne sama doom la ñu rey ndekete sama doomu mag bi lañ rey parce que xam nga xale yi ñoom dañoo nuroo moo tax waaw ñoom maag papaam ñoo bokk benn baay waaw. Euh, euh, yooyu naka naka nga ko fekkee. moment bi dama ko fekk mu tëdd dëpp nii. dëpp tourné bopp bi xool penku mais mel comme comme si kuy nelaw rek mu doon lu yéeme lu métti sax lu doy waar dama ko daan dégg rek mais mosuma ci dégg sama bët gu leen démb ma sa gis lu mel ni te yàlla moo ko gisati yàlla moo ko gisati yàlla bu ko kenn gisati ci àddina wallahi métti na trop. parce que ku nekk euh, xam na ni li ko dal métti na vraiment parce que koo xamante ni yaakaar la woon ci ay waajuram ñu faat ko dénk nañ sànq papa mu ne euh, li nga xamante ni moom la gis mosu koo gis parce que dañ ko reen. Mhm. waaw xale bi loolu ngeen lañ ko mën a tuddee parce que jam da ngay xàcc paaka jam mais loo xam ne yaa ngi ko commencé ci keru nopp dagg mu ba mu dem ba ci baat loolu rend nga ko mën a tuddee xam nga ne waaw ah, daf ko rendi. da ko doxee ginnaaw waaw doxe ko doxee ñoom dañu werante euh, xale kii na kii sa xale bu góor moo ko saaga mu ne ko bu ma saagaat ne ci li ñu fekke li ñu wax nee na xale bu góor ne bu ma saagaat damay fay mu saagaat kooku fayu mu ne ko xaaral ma ñëw daal dem léegi xale bu góor bi moom mi ngi continuer di fubal dafa teg bal bi nii nañ ba war a dóor kële egsi paaka bi rek reen di ko nii la demee. dañoo werante ñu àtte leen moom mu dem. jotuñoo xeex dañoo ay baat rek jotuñoo xeex sax dañoo waxante ay baat rek. nekkul kon xam nga loolu nekkul garaaw mais ñun nag xamuñu ndax dañoo jotee woon wala ñun xamuñu waaw mënuñoo xam lan moo leen boole waaw. acte bi ni mu demee dafa dafa xaw a niru mel ni en dafa amoon ci seen diggante ñoom. pourtant ah mën naa nekk tamit parce que xale yi ñoom seen duggante seen génn ñun mag ngi duñ ko xam ñu xam mais ni ma la ko mën a waxee mooy ñoom xamante wuñu fii lañ xamante kële dëkk fi kii moo fi dëkk. kon yaakaar naa en warta mën a am seen diggante lu ñuy jàppale kenn ku ne di jàppal ay moroomam parce que ki ñu rey moom nga xam xam ni fokaat la woon kaf tooñaate mbalak yooyu lay def moom mais pour beneen problème mu am ko moom nit ku la ku dal ku noppi ku jàpp njàmburam kafree bu la rawee ci moom amul amul jeex na amul beneen problème ay xeex ay histoire yi ngay àtte moom doonu loon jikkoom doonu ko woon def wallaahi. Euh, wax nañu ni tamit waaw euh, ay xale bu ñuy euh, jotee mbaa ñuy werante ñi leen ñi toog war nañoo jóg atte ci mi gaaw atte yi tamit ñaare dañuy xaw a yeex dañuy war di jóg di gaaw di atte dégg nga bu baax mais ba tamit leen tamit am na ci action bi am démb gaaw na gaaw goo xam ne ñi toog seen xel mën na bañ a nekk ci ne. kii di ñëw kat day rey si kii parce que kenn ci ñoom xalaatul loom ñoom xam nga lañ ci am jékki-jékki gis kii daanu dëpp ñoom loolu lañ ci am ak xanaa kenn ki ko gis benn ki àndoon ak moom topp ko di daw pour di kii kenn koo ko gis xanaa. parce que kooku ñàkkul dafa gisoon mu yor paa. ok ñi toog fii ñoom di ñëwati ñoom gisuñu xamuñu fekke wuñu action xamuñu dara ñoom liggéey di liggéey kee mi ngi fubal këla jógee na fee rek ñëw yu mel noonu xam nga day gaaw ba doo ko doo gis noonu la demee démb na euh, message bi may lancer daal mooy Sénégal léegi rey bari na fi torop su ma bëgg li ma bëggoon lenn rek la mooy nguur gi na jël euh, peine bu diis teg ci kaw population bi euh, peine de mort suñ ko tëraloo mm. hmm? rey ñu rey la kon kenn dootul rey doomu aadama yàlla moo ñu ëpp yërmande fu mu demee ba toog ba ne kun rey nañ la rey waaw lan moo tax loolu ñun doomi aadama yi mënuñoo appliquer loolu buñ tëraloon loolu kenn dootu ray doomu aadama rey gi bari na trop boo ko déggee fii tey bu suwaa nga dégg fa man barki démb bu seeraas bi laa dégg may jooy boobu pareegu ma ñu ndekete ñu ngi naan ma sa doom lañ moo ciy topp ñaaw na ñaaw na trop. kon kon tey waa li nga xamante ne ñoom it def nañ ko parce que nee nañu bi mu ko faatee rawewu ko lu bari ndax ñoom itam dañoo songul xale bi dóor ko ba mu ñàkk bakkan. waaw noonu la demee waaw noonu la demee bi mu ko faatee rawewu ko bari parce que kii moom bi mu daanoo rek ci kanam papaam foofu la seede moom mais keneen ki dafa dawoon dugg ci yeneen kër gi nekkoon fee. mais à nag ñun bi ñuy nekk di lijjante kii man fi ma taxaw fi laa jekk jéggi-jéggi ñu ne ñu nañ keneen ki. waaw man loolu laa ci am man moom waaw mu doon nag lu yéeme lu miti lool sax waaw lu métti lool démb ba tey mënuñoo lekk mënuñoo naan mënuñoo nelaw parce que ku taxaw fii démb liñ gis fii démb képp ko gis ko ne bu ma ne boo tëddee di nga nelaw wallaahi lu musul am nag lu musta am fii ñun xam ñu loolu ñun xam ñu loolu ñun liggéey yi ñëw toog lañ xam bàyyi seex dix-neuf ans waaw xale la waaw xale la jërëjëf ñu ngi lay masawu. waaw sant bu baax di la ñaanal yàlla may jërëjëf amiin jërëjëf niñ leen ko waxee rek ñu ngi taxawaak ak ki nga xamante ne moom mooy euh, maamu xale bi nga xam ne euh, moom la ñu faat fii ci caaro yi ginnaaw bi ma ko jaalee euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di la di la ci li ñu nangul tey taxaw ngir waaw ñoo ngi lay delloo njaal di leen fay di leen wax soyez les bienvenus jërë ngeen jëf man maamu xale bi laa waaw li fi xew moom nii la xewee rek maa ngi tudd Ndiaga Dieng euh, li fi xew moom nii rek la xewee démb heure bi fekk na mi ngi am am na ba pare démb heure bi ci waxtu bi euh, amul ba jusqu'à présent nag kenn ku mën a taxaw wax la ni la lii la jote ak kooku kenn waxagula ko te kenn ñi ma wula génn aussi feeñ ni man fekke naa ko wala xam naa ci dara nii rek lañ koy waxee waaye nag euh, rey bu ñaaw la ko rey fii ci sama gannaaw ñii ngeen di gis ci géej tefes gi nii daanaka euh, dugg na ci biir ndox mi foofu la ko ko defee voilà euh, rey bu ñaaw la ko rey it parce que mënuñu wax ni jam la peut être jam da ngay nit ki pa xóot génne deret mais mm, li ko tomb ba tàmbalee ci nopp ba ci bëli ku ko dagg xam nga loolu rendi lañ koy mën a tuddee muy lu ñaaw expression bi da ngeen ma ci jéggal bu baax waaye noonu la ko defee noonu la ko defee moom na xale bi euh, yàlla def na soutien de famille la woon ndax euh, mooy taawu papaam moog yaay moom rek la ñu am papaam mi ngi ci biir xam naa traumatisme bi moo ko xaw a moo ko jàpp ba nga fi ne mënatu la wax parce que presque trente organes de presse ñëw na fi ci subaak léegi am na ci yu mu addo am na ci yoo xamante ni man maa wax à sa place parce que noonu la mën a defee ñoom mënatuñoo mënatuñoo àddu mënatuñoo wax parce que kaawute nañ vraiment euh, comme ni mu demee nag Euh, mëne sula cee wax leneen lu ëpp euh, ñoom kenn xamul lu ñu jote kenn xamul lu ñu jotee waaye nag euh, ñun ñi nga xamante ni ñooy famille bi ñun jàmm rek la ñu woote jàmm rek la ñu bëgg parce que il paraît heure bii démb y avait un soulèvement boo xamante ni populaire la waa dëkk bi génn ba éliminer ki nga xamante ni aussi moo ko def loolu dañ ko mujj éliminer mais mënoon ni kii la mënoon ni kee ca la bokk mënoon ni kee la bokk parce que waa dëkk bi yëpp a génn. gis nga actuellement à l'heure bii ñuy wax ni gis nga force de l'ordre yi ñu ngi nii taxawaat ñëwaat parce que dañ doon réunion léegi pour bëggaat jàmm am mais dafa mujj affaire bi dafa dafa dafa déclenché waat ba moo tax ñu ñëw pour la sécurité euh, di ko sàmm loolu mooy li nga xamante ni moom moo fi am euh, xale bi gaañu nag Baye Cheikh euh, Diop la tudd Baye Cheikh Diop la tudd ñii nee nañu Lompul la dëkk ñii ni Fass booy la dëkk mais quoi qu'il moom Euh, xam naa bu ay parents ñëwee dina ñu xam fan la bokk ñoom dinañu identifier wu mën a feeñ euh, xëy na li ci des nag enquête moo ko mën a indi euh, bu enquête moo nu mën a édifier à ce que ñu xam cause li xew ak nu mu demee kooku enquête bi rek moo nu ko mën a wax ndax léegi lañ ko jëlee fële léegi lañ leen jëlee fële ci hôpital camp bi yóbbu leen CTO pour des raisons de d'autopsie loolu moo tax ñu yóbbu leen foofu mais dañu wax ni ba demee itam dañu lëndi rek. te lundi sax wóorul ba xam dinañ ci jot am déet waaw loolu mooy li nga xamante ne daal moo fi jot am. mel am ñoo xam na ñoo xam ne ñu fi doon toogoon toogoon di leen seetaan àtte wuñu mu mel ni loolu dañ koy ñaawlu waa koñ bi. loolu itam wax nañ ko ci euh, ñenn ñi wax nañ ko nee nañu am na ñoo xamante ni ñu ngi toogoon fii. waaye man dafa ne ma yaakaar xeex jotul am ndax dégguma kenn ko wax ni dañoo songoo wala ñu ni jàppal bàyyil action bu gaaw la action bi dafa gaaw kon te mën nañ ñi xëy na ñi toogoon tey euh, fii itam euh, mbett ci mbetteel la leen dale ndax action bi ci ay seconde la amee rek booy bi daal di daanu ñu ni rey na ko booy bi jéem a daw ñu daal di koy intercepté téye ko donc am na ñoo xam ne xëy na bu ñu fekkoon ni ñu ngi fi woon di taxaw di ko xool itam ah identifié wuñu wala ñi sañ ñi ma wuñoo génn wax ni ñun fekkee nañ xam le Sénégal moom témoin moo fi gën a jafe am na ñoo xam ne bu ñu fekkee mbir mi bu ñu nee am na ci doonte xam nañu dañuy dañuy téye seen bopp waaw dañuy téye seen bopp mais daal mais aussi ñu ngi dégg waa koñ bi waa Thiaroye bu njëkk dañoo booloo woon waaw mais cette gis ne maanaam violence bi commencé na fi mhm. leen rax quoi si mhm. biir koñ dafa mel ne léegi dafa am ñoo xam ne dañoo rax biir Thiaroye moo tax ñoo fi indi li nga xam ne violence waaw xam waaw xam bu ñu nee lii c'est la première fois muy soog am caaro yi man nga ni kon te ki ko def gan la na ñu indi raison boobu mën nañ ko évoquer wane ni rax nañ parce que ki ko def gan la fi waaye gan googu du tere mu kooku war fee ñëw ba def lii ndax kii nga xamante ni moom la ñu def loolu dafa am ci dëkk bu mu campagne woon dem fa moom itam uti fa kii uti fa teranga da eh, eh, bii passé temps yee passé rek la fi indil papam un million deux cent mille yoo xam ne mi ngi ko liggéeyee Kafountine te Kafountine dëkku tefes la te dëkkul fii dafa campagne woon foofu amee ko fa kii itam ko def loolu sa ñaa ñëw jógee ci beneen dëkk ñëw campagne si fii parce que eh, géej gi amul frontière ñëpp ci bokk yem sénégalais bu nekk am nga sañ-sañu dem ci dëkk bu la neex sàkku fa euh, sàkku fa am-am euh, li xew nag euh, des raisons de pour des raisons de sécurité état responsabilité partagée def ciy am état bi responsable la ci parents yi responsable lañu mais jeunesse bi aussi responsable lañ surtout jeunesse bi actuellement ni nga xamante ne noonu la ñuy comporté wa comporté woo il faut qu'il y ait un changement de comportement total ci jeunesse bi pour que yii ñu bàyyi violence yi demee nii parce que leer na ma ni dem euh, weer wi yëpp yéen a ngi dégg kii du ko ñu ñu rend ay rend yu ñaaw ngay dégg rek presse bi jël na fu ne dem ngeen fu ne tàllali micro loolu nag dafa euh, euh, lu xew loo nga xamante ni c'est dû à quoi kenn mënu laa wax ni la lii la. waaw loo xam ne mosuñ ko woon xam fii Sénégal. waaw mooy éducation bi yar bi moo des rek éducation bi moo des mag ñi ñi ñu yaroon ñun duñ ciy toll. ñun da nga daan soxlaa rey ginaar sax da ngay wër koj bi ko wax mun la man néeg na maa rey ginaar léegi nag néegatuñu fa paaka ren di loolu loolu c'est dû à doo ko mën a wax doo mën a wax ni lii la négligence daal am na ci responsabilité partagée aussi am na ci ci côté état bi ci sécurité ci côté parent yi mais xale yi ci boppam yar bi des na éducation bi des na parce que ko wax mun la dama lay suuj dama lay rey damay génne paaka damay nangam nangam loolu nag war nañ cee jóg ñu taxaw seetlu ba xam lan moo ko waral waaw. d'accord léegi ñi nga xam ne ñoom ñii nga baax na ñi xam ne ñoom dañ fi nekkoon waa lomp yooyu. Hmm. est-ce que ñu ngi fi ba tey wala yéen da ngeen leen demandé à que pour ñu quitter fii le temps que ñu régler problème bi tension yi wàcc. waaw parce que chef de village bi ak notable yi ak imam yi bi ñu waxtaanee démb ba tey jii li ñuy wax mooy képp koo xamante ni dëkkoo fii nanga dellu fa nga dëkkoon be jàmm am ba ñu réglé ko yaanaa ki sont partis am na ñoo xamante ni dem nañ am na ñoo xamante ni ñu ngi fi demaguñu am na ñoo xamante ni teeruñu woon parce que ñu ngi woon biir géej teeraguñu dañ leen a téléphoné sax wax leen ni leen bu leen teer ñooñu xamuñu xam mënoo xam fan la ñu nekk. mais mais décision boobu dañ koy wax ñii d'accord nañ ci ñii d'accorduñu ci. ba moo waral réunion bi ñu doon wee réunion léegi mu réunion ba dafa toj. léegi bu ñàkk d'accord waaw c'est fort fort possible parce que moo tax euh, service de l'ordre bi ñëw fi gendarme yaa ngi nii taxaw nga di leen gis moo tax ñu ñëw fii pour euh, prévention rek pour prévoir dara bu mënee yëngu waaye nag ñun moom kii képp koo xamante ni déggal nga ñu ñun parents ki nga xamante ni ñoo faatule ñun jàmm la ñu woote jàmm la ñuy wax nan nit ñi am jàmm nan nit ñi am jàmm parce que euh, ay moom euh, du yam ci bopp borom kon nag nañu calme ñun loolu la ñuy digal ñëpp nañ ko def koo xamante ni rey giñ ko rey moo la naqari ba nga ni dangay ngay manifester wala da ngay jóg di def dara ah arrêté ko arrêté ko ñun moom la ñu santaane ba ñu jot suñu néew ba suul ba rob ko ba pare ñaar ñëpp nag dañ leen di ñaanal parce que nag euh, ñoom ñaar li ci xew sax da di bu nga xamante ni dafa xaw a yéeme dafa xaw a yéeme benn ñoo bokk benn benn ñoo bokk benn tur kii Pape Cheikh Diop tudd kii Pape Cheikh Samb la tudd ñoom ñaar ñoo bokk benn at bu ñu judd ñoo bokk benn weer bu ñu judd ñoo bokk benn bis bu ñu judd ñoom la ñu bokk yóbboondoo ci ambulance bi ñu bokk fu ñu tëdd ca hôpital fi mu nekk nii ñoo bokk benn bisit bu ñu leen rey bu ñu dee boobu coïncidence c'est dû à quoi doo ko xam kon il faut nga indi yàlla teg nag ci mbir mi yàllaa ko dogal waaw bi kay jigéen ne tey loolu la firndeel ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk leen lépp kii Samb la sant kii Jóob la sant rek moo leen wutale mais ñoo bokk tout. ak acte bi ni mu gaawee ak ni mu demee. waaw ndax peut-être ñenn ñi mënuñu wax waral loolu haine ay waral jël ngànnaay nga jam ko nit wala nga rendi ko haine daal fa taw mu am ca mais kan moo koy layal fi mu nekk nii comme ñoom ñaar ñëpp dem nañu. bu fekkoon ne ki rey mu ngi fi dund ñu jàpp ko les pour euh, pourront édifier euh, la réalité mais tey jii kenn mënut a wax ni alors lii la parce que kenn mënu laa wax ñi ni ñu jot. da nga gis ñoom ñaar ñuy toog waxtaan ñuy bokk benn kër wala. non dañuy demander est-ce que ñoom ñaar xamante woon xamante nañu sax xamante nañu sax waaw est-ce que xamante nañu ba loolu am xam naa fu lu ñu mën di jote moom wax am na wax bu wax wax bu ñu jokkalante ñoom ñaar ba loolu mën a am mais xëy na comme kenn fekkewu ko kenn fekkewu ndax xale bu xale bi ko def moom mosul ñëw ci kër gi daaw fi ñëw itam waaw daaw fi ñëw itam daaw ñu toog duñu xaritoo wuñu xamante wuñu kon donc ah, alors voilà noonu loolu la noonu la demee après rey bi la ñuy soog xam ni kii moo ko def waaye gis nga moom it liñ ci yàlla dogal voilà ñu éliminer. on peut passer à